baax di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal sutura waaye yaakaar naa ne tey jii kii ñu jàkkaarloo réew mi xam nañ ko ndax yaakaar naa ne Serigne Cissé mu Serigne Babacar Sy réew mi xam nañ ko Serigne Cissé nag menn mbër rek la ko réew mi xamee xamee wuñ ko ñaari mbër xamee wuñ ko ñetti mbër benn mbër la mësti di ngemb ci làmb te ba tey jii fii ñuy wax ak yéen moom rek lay ngemb muy le roi des arènes. Modou Xarañ Lo Serigne Cissé yaakaar naa ne bu ñu la nuyoo ñaanal la jàmm ñaanal la sutura looy nuyoo réew mi ak waa diaspora bi ak képp koo xam ne nii yaa ngi bëggee làmb rek Serigne Cissé lan nga koy wax. rabi sarax li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi bu nu sant yàlla julli ci sang-sang yi muy Seydina Muhammad ñu ngi nuy ñëpp di siyaare ñëpp di leen nuyu ci baatu asalaamaaleykum. wa rahmatullahi taala wa barakatuhu fadam ñoo leen di nuyu di nuyu mboolem koo xam ne moo ngi nuyu bàyyi xel travers diaspora ak fii ci senegal Serigne mhm. moo la boole Modou Xarañ Lo. Modou li nu boole avant mooy ne bokkoon nañu dëkk bokk dëkk ca parcelle booba Modou mu ngi entraîné foofu ci école unité 10 bu parcelle. booba kër baayam gi melagul ni arduwaas la booba mu nekk fa ak njaboot ak baayam gi yépp waaye yaakaar yi yépp nag yàlla dogaloon ko mu nekk ci jëmmam ji jamono boobu lañu xamee euh, boobaak léegi nag mu ngi bëgg a yàgg waaye booba dëkkandoo ak kóllëre boole nu ba waxtu wi moo du yegsi fi mu yegsi waaye booba avant de xame gi dëkkandoo ca njëkk ba xame ñëw ñu ànd ci lii ñu ànd Serigne Cissé Modou Lo nekk roi des arènes. Mhm. ñu dégg ne diggante ak Boy Niang taxaw na. Mhm. ñu daal di daw ñëw. yaakaar naa ne Boy Niang numéro 2 moo daan Balla Gaye 2 mi daanoon Modou Lo. Mhm. Boy Niang ñëw daan ko làmb jooju boo amul loo ci xamante ni loolu nga leen ciy wax. waa nanu xaar làmb joo xam ne bu ci at bi buñ ci bëree da nga gis làmb ju neex làmb joo xam ne nag xam naa mosunoo gis ku sol trois pièces jesner wàcc ci digg ci géew. combat Modou Lo Boy Niang. waaw Serigne lu mu daan def day def yebal gone yi ñu dem mu des ca kër ga. waaw waaye bii Serigne Cissé dem stade. Serigne Cissé mooy yu mujj yi Modou di def Serigne yi bokk ca ña koy def taxaw ne bii nañ ko defee nii bii nañ ko defee nii bii nañ ko defee naa. ndax bisbee ko laaj ndax première sorti ci roi des arènes la kon loola waru ko ñàkk waru ko ñàkk te loola day laaj lu ne te lum laaj lu ne nag def ko rek damay wax ne làmbu tegtal la te tegtal ya ku la ko gën a fonk dàq laa yóbbu victoire te làmb ji da di làmbi tegtal tegtal yooyu nag Serigne Cissé dénkaane naa defal leen ma lii duma ma ci doy makoy koy jàpp ci sama bop bi di defal sama bop ba modou bëree daan ndax modou dama ko waxon nako ko kerek boo doonee roi des arènes ma ba. waaye lambu deret la juy dox ci deret la jo xamne jam. bu duggé ci sa yaram jeex bu sunil xasse signé rek to am ñu dégg né Modou lay bo rew mi yépp né Modou na ñaan lu. Modou. baye na ñaan lu. dedet adduwaa usilaa ul muminin. la arab boo xoon dana jullit ñu ne naa mu ne ngan lan mooy ngàndaayam ci bu jaaxlee ak mu jëm ci dara lan mooy ngàndaayam dëgg-dëgg ñu ne mu taxaw ñaanlu ñaan ci ban façon moodu am na droit wu ñaan ci ban façon ndax mu ngi mu ngi ci baatu jullit gi baatu seede yi si la ne nit ñi dañuy dugg ci sew-sew boo xam ne fanam du nuy bàyyi xel ñaanlu gi mu ngi ci day ñaan lu ndax ñaan gi du duhut pour victoire bi ngay daan làmmeñu ba ci jaam ñi nekk ci kaw esaat bi ñëpp sifle indi na forme indi wut forme kooka nag boo fexee muslowoo ci ñoom mën na la xeñ sax sa bis ba kon loola moo tax ma ne la Moodu nit ñi dañ ne du def lii Cissé ne day sol trois pes jees na def ni mu def wàcc ci géew bi yor kurus gi di bàkk yàlla sarax yi war a génn ma dëpp combat bi <laughs> sëriñ maa la wax li alaaj euh, ah, alaaj Fadam yàlla xam na ne sëriñ Cissé mu sëriñ Baba Kër si jël ay engagement am waxtaan ak ka muy yóbbu ne la nii la duma indi defet. Lamine xanaa moo question booy doo ko posé xam nga xam nga xam nga lu ma jaaxal Lamine. Mm-hmm. Boy Niang dafa wane barki démb ci mystique loo xam ne nii ci ñaan loo xam ne kii mos koo natt ci làmb mu ñëw daan daan liñ kóor gi ci man ci làmb guddi yi muy Balla Gaye numéro 2. Serigne Cissé Boy Niang numéro dama xam fi mu dama xam ñekko ko xam fa mu ngémboo man maay senegal Serigne xam nga. ci séeréel si may senegal ci pël ñi maay Sénégal Saalum maay senegal Bawol may senegal ndax ñoom ñëpp dama am ak ñoom xalaaxa ndax sama baay moom ma njëkk a wax ci àdduna na ma dara bu fekkee sa tiraanga da cee ne dalay jaral dara te ëtt nga wax yépp ci si damay dem di bok ak ñom di lek saaj di lek ciéré ndax bëgg ci lañu yor tax ndax ngembu dafa am lu ko def te làmb dëgg buñ ko waxé séeréel la tax dama daan dugg fi joofi yor def fukki fan ak juroom ndax xam-xamu lamb di ko fa tarbiya dugg ñoojoor ciajaay fu ne di ko fa wut sëriñ bo xamné day tok légui di fas ndax ndax lu nit di wax lu ne day am sédé li fasa ko tax a jóg ndax ngigées la. Ah, xànc la moo xam ne lu dul fas lu bis yu mel nii rek laay xaar. Oh. di fas di teg. bu bu aaj jooni jooni bu aajoo ñu daggal la alaway xànceer daggal la musalas boole la ak jant bi nëbbu la ñu def ko. Oh. lu bis bi laaj ci mystique dañ koy def ndax ndam dafa neex ndam kenn du ko caaxaanee. pour ñaandu Modou Lo du ñaanlu. Modou day ñaanlu adduhaa u silaahul jullit la julli day ñaanlu. bu la woowee ci combat bu la. ma wooyee bu ma woowu day ñaan ñaanlu ndax dañ koo xas xam ci sama ginnaaw bu ma départ eh, eh, ñëppay départ bu ma départ ñëpp départ Modou première sortem la. ci titre roi des arènes. ci titre roi des roi des mi ci njob ngay di jël booy ñu numéro jàmbaar la. mburum waaye ki waaye waaye ki ma ki ma am. li tax man du ku ne lay ñaanal man dama bëgg ku am jom. dama gis na nag loolu da nga koy war nga cee taxaw nag Serigne Cissé dama gis Serigne su bëri tey nga gis leen ma Samba. Mhm. suba nga gis leen ak ma Demba gannaaw suba nga gis leen ak keneen mais li ñoo gis Serigne Cissé biñ la xamee ba léegi benn mbër lañ la mën a dafa am Serigne soo xam ne gëmuñu seen bopp avant tout nit da ngay am personnalité bu ñu xamee kenn man nga am ak ñëpp jàmm nag waaye mbiru ñaan rawatina mbiru làmb dafa fiir hmm. mbiru làmb dafa fiir boo ci xasee dugg rek. ñu xam la kenn ngeen départ premier ba yegg si fii mu yegg si suba ñu gëstuwaat la gisaat la ci geneen keppaar suba geneen keppaar non non non rawatina nag di fës ci yenn yi noonu kon nit ki dafa am foo xam ne bu fa imaasam tollee am na loo xam ne lu koy jógloo lu ne la doon farata sëñ Cissé caaxaan yëkkatiwul ko sëñ Cissé caaxaan téyeloowul ko kurusam ji kon lépp lu sëriñ Cissé def da koy def ci engagement yu wér péng waaye ay falaa falaa yi diw béppé na ma tax ma dem ca combat ba non non non dañoo war a signé ñu seet bañ ne signé nañ ko ñu soog a départ nag ànd ak tegtal ya ànd ak tegtal ya ba tey la làmb ji. hey boo la waaye dimanche soreetut bu dimanche bu paree da nga ñëwaat fi may la gis nga mbir yi. waaw nañ man nañ présenté rek. boobaa ngay xam. nu làmb di demee xam nga def trois pièces jees neer yor sa kurus gu gu rafet wàcc ci digg estaat ci digg géew bi di joxe ay tegtal ne nii lañ koy def danga ko gis si sëriñ si sama sëriñ Babacar Si ndax Modou Modou la jaral loolu sama nit la jaral na ma lu ëpp loola ndax man nit ku ma yëg waxuma la xaalis nit yëg-yëg rek boo ma ko defee du ma la yéenee te defee te àdduna ndax yëg gi dafa bari ci suma digganteeg moom Modou avant tout la ma waxoon bërki démb ca ngénteel Lamine la ne Lamine taalube la muudu taalube la xañ na kenn ku ne wéyjur dana liggéey ba am fu yàlla jaaree fayee ko fa muudu yàlla da ko fayee seen waa kër taalube googee nag moo tax ma samay mag yëpp a ngi ci ginnaaw da ngay dem fii fekk fa baaba Babacar Cissé ak Mor Cissé ñu ngi ci biir cumbukaay bi àllu saalum bii yépp ñoo koy ñaay mag mu fa ne te lu baax danañ ko jël indi ko ci Moodu lu ko ñu yëg-yëg gi mu am ci ñu la tax koy defal mag mu fa nekk saalum te yor bindukaay bu baax yor nekk borom borom tuur yàlla wér danga ko defee ñu jël ko indil ko Moodu ndax lan yëg-yëg gi mu am si ñun. Saalum rek wala Siin Saalum. Siin ak ba wala Kajoor tout. man avant mu di woote maay woote. su fa Boy Niang duggee nag. Boy bu mu fa dugg muk moom fi seen dëkk seen dëkk boppam bi xam naa ko te fafa dama fa bari ay kóllëre te combat bii man la ñuy jàppale. combat Moodu bii. dama fa bëri ay nit a combat Modou bi man la ñuy jàppale mook Balla bi ñu bëree ba ci suba sa dem naa dëkk ñoom Boy Niang fi déggool gane jamono Sàmbe ci boppam dem naa fa ca bool te ñooñu combat bi dama leen di dugal ci biir combat bi dama leen di dugal ci combat bi Modou la ñuy jàppale naa combat bi nee nga bu jaree toog weer doo tëdd ci village yor sa kurus rek ndax bi bu jaree toog ci der bii Where ci der bi la koy tek si der bi la koy tek <laughs> di fi tok gudi ak bëccëg suba ngon nga combat be mako jaral ndax modou premier sortem duma setan mu koy ñak premier sortem duma setan mu koy ñàkk tahasbunallahu wa ni'mal wakiilu ni'mal mawla wa ni'mal nasir ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا كون دا نجي